asalaamaaleykum mbokku internetu jàmm ji info point net ni ñu koy safoo di defee saa su di seen jotaay noo ko jàngatee mbokk yi seen jotaay noo ko jàngatee rek dellu si wat yaakaar naa ni dootuñu ko présenté bu ñu nee actualité tam sunu xel tam dina demaat ci oustaz euh, Iran Ndaw yaakaar naa déggoonte nañu ak moom ci communication par téléphone euh, bi nga xamante rek euh, ginnaaw si rek xew-xew bi fi amoon balaa ñuy sori rek dañ koy daal di jox kàddu bi mu daal di nuyoo balaa ñuy dellu si oustaz Iran namoon nañ la lool waaye nag dafa mel ne xam naa tey da tey kanam gi moom dafa gën a leer dañ dañ koy wax waxtaan tuuti rek salaamaaleykum. aleykum salaam sëñ Mountakha tax ngi leen di gërëm di nuyu waa jàmm ji info ak ñi nga xam ne ñoo koy seetaan yépp ñaan yàlla barkeel ko man damaa woor man damay saxoo koor tabaski korite rek laa dul lekk rek laay lekk tabaski korite te mënuma lekk bëccëg guddi gi laay mën a lekk ndax sama biir tàmmul lekk bëccëg. kanam gi moom leer gi moom daf ma dama yaakaar ne rek euh, nouvelle bi bi bi wàcc rek moo tax moom moo gën a fësaat daal leer gi daal. waaw loolu moom mën naa nekk ndax man biñ ma waxee xalifa génn boo déggee sama voix nga ma sax mais manoo xam li may wax booba sama baat sax tane na ndax biñ ma waxee xalifa génn rek fi ma jógee pour wax ci la baat bi bañ donc loolu dara nekku ci parce que. bi yonent bi faatoo biñ ko tàggee Alioune dafa lafañ ñu tàgg ko Ousmane mu muuma ñu tàgge ko Omar mu dof kon boo bëggee dara mu ñëwee ci mbetteel ti lu la bett rek ëpp la doole mais mbégare gu ëpp la rek eh, boo bégee nag ah sëñ Abdoulaye Gis Abdou Sall da ko tuddee doom te Abdou Sall moom lañ ko tuddee ma ñëw di ko ndokkeel maak ñoom maam Njoogu si eh, bañ ñëwee mu ni ñu ah Ibrahima man de dama jaaxle Abdou Sall bàyyam tuddee ma ko mu tuddee ma waat doom sol ba xabu rafet keroog la génne téere bi mu taalif ma ne ko papa kii nañ ko tasaare mu ne ma Cheikh Tidiane bind Mansour bind Moustapha bind mu ne ci nit ñi di ko jàng may bind seen wet man dama leen di diir mbagg mukk bi mu nelawee lañ ko doo a tasaar waaye mu nga sañse ñun itam bi xalifa génne dañoo bég waaw gu ëpp goo xam ne alhamdulilah du mbégari gu jur bàkkaar nag ëpp na gaa waaye bàkkaar amu ci jërëjëf oustaz Iran yaakaar naa loolu am na solo oustaz ma dellusiwaat rek tuuti rek ki euh, li nga xamante rek muy séjour bi nga xamante ne rek euh, sama sëriñ sëriñ Mountakha moom euh, Cheikh Mouhamadoul Bachir xalif général des Mourides semaine bi mu def ci ndakaaru ban njàngat nga ci mën a tiire leçon bi nga xam ne def na ko fi ginnaaw si bala muy dëppaat. waaw semaine liggéey la mission la doon dox waaw li ma wax ni Serigne Touba voyage mission la doon doxi sëñ Muntaxa mission la doon dox si parce que yim boolee dafa bari ubbi na jumaa ubbi diggante baay ak doom muy Macky Sall ak papaam Ablaye Wade ba sababu xalifa génn ak yi ci xew yëpp waaw yi ci xew yëpp yal na yàlla gën a yaatal yal yàlla gën a neexal yal yàlla gën a naatal waaye daal yëg nañ ni ay tànkam tànk yu jur yiw la yu jur sutura la yu jur teraanga la ku yebu nag bégge ko gis nga tàmm di mer di am naqar ci lu baax baaxul ni dafa war tàmm di bégge lu baax Cheikh El Hadj Abdoul ma Abdou soo masa bu masa feebar lii koy wéral nga jox ko loxo mu ne kii kan la Pam Maxtaar mu ne Mbàkke la sant wala sii walla ñas walla kunta wala dara mu ni teg ko ci loxo kunta kunta kunta kunta noonu lay jogaalee loolaa koy wéral sëtu mag ñi rek wala mu toog ñu nettali lu baax sëñ Muntaxa de dem def ba mu demee ubbi jumaa ja ci la jubale Ablaye wàdd ak Macky Sall mu ne alhamdulilahi rabbil alamin jog toog wér na nañ ma indil ma ñam mos lu ma lekk alaajab Abdu surtout mag ñi nañ jël lox na leen nuyu teg ko ci dënnam wér na nañ ko nettali lu baax wér na fii nag bala ñoo bég lu bon la dégg Sénégal ak garaaw mii lu xew réew moo xam nit ñi bala ñu bég yëg lu bon ñu cay commentaire te jàmm ji dafa garaaw baat bu garaaw la foo na ko mooy lan waaye jàmm ji garaaw na de kon ci jàmm jàmm ci la lépp xaj sëñ Muntaxa ci boppam jëmmi jàmm la moom ci boppam rek jàmm la koo xam ni bijaaw beeg bëñ yi rekk ngay séen day ree rek ree rek ree rek mais mais kontaan baaxul te bi ci des li may faral di wax dund na xilaafa yépp kenn ku ne bóof ci sa kanam jël juddoom soppi ko taalibe gunge ñépp ba yegg si tey mu geesu kenn newu fi sëñ Tuubaa ne ko toogal sëriñ Muntaxa ni mu nangulee ay kilifaam du ñaan kenn ti du la doo ko may boo ko gàntoo gàntoo Cheikh Ahmadou Bamba moo tax jumaa jeeg kilifa ya fa dajeeg mbégari yéeg yépp sant yàlla la li ci des du dara addunaa mel noonu adduna moo mel noonu lu yónnent amul yàlla mi bind mayu ko boppam jaam du ko soxla te gis nga euh, dafa am foo xam ne boo fa yeggee sëñ Muntaxa fi mu yegg dara dootu ko déranger ci àdduna fekkee na lu bari xam na lu bari te am na lu ko ñor góor gu am principe la ku am farata gu am fulla gu am fayda lii may wax ci moom du du bi mu nekkee xalifa dem leen gëstu samay vidéo euh, gis nañ ba mu njëkkee euh, toog euh, bu mu nekkee nekkal Serigne Touba Khadim Rasoul ci xalifa gi dégg nañ interview boo def à travers Sen TV nga wax ci wax ju ni nga wax ci moom wax nga ko avant. moom muy doon xalifa laa ko waxoon ci moom donc man daf ma mës a neex man gis nga kilifa dama bëgg kilifa guy boor. di rogganti sa baqatay liir fompal sa sawum liir foo fóotal te sangaat sobeem fóotal gàllam fóotal bootal rogganti kilifa noonu la sëñ Muntaxa kilifa pur la parce que mission bi mu dox eh, bii bi mu dugal Eh, balu or duñ ko ko jox balu jamaa rek lu tëj ñépp mu def ko di ko ne xam ne ne alal taxul kuy sa maam sëñ Tuubaa koo toogal sëñ Tuubaa fala alal yam looy soxlaati soo ne damay dem million oto taxaw ku ne ne kaay dugg sama oto soo noon bu noon léegi wax fii ci jàmm ji info damaa soxla milliard fii ak une heure de temps fukki nit ku ne ñëw tegal ko milliard kon lu mu dox dëgg la lu mu wax dëgg la nit ki da ngay xool bul ko xoolee Iran mi nga xam ne jaaykatu radi la jaaykatu galaas la jaaykatu ndox la waaju alcool la kooku bu ko xoolee keneen kooku lu mu wax mun na am ay intérêt ko waaye sëñ Muntaxa mission moo ko indi woon fii dox na mission bi rafet na sell na bégg nañ ko dara ñaawu ci lépp a rafet waaw Euh, oustaz loolu am na solo yaakaar naa li nga wax euh, ni ma ko waxee loolu seede lañ ci ndax euh, yàgg nañu dégg tam nga di ko leeral à travers Sen TV boobu sax nekkagul a xalifa oustaz ma jëm rek muy ubbite Masalikul Jinaan bés boobu itam ñu bëri jotoon nañu annoncé teewaayu oustaz Iran Ndao boobu sax xam naa xaw nañu am lu jokkoo pour mu gën a leer rek xam nga tam leeral am na solo ci jàmm ji ndax jàmm si la lépp xew oustaz ñëpp nga loon xaar plateau par la suite ñëw teewaay ñàkk teewaay boobu lan moo ko waraloon. ñëw naa ñëw naa wax naa la ko euh, ajjuma jeudi ci guddi laa jokkaloo Clédor mu ne ma annoncé nañ la nga war a def ci benn plateau ma ne ko ok ñu xëy mu oo ne ma oto baa ngi lay jël si mu yebal chauffeur bi mu jël si ma ma ànd ak ku ñuy wax wéekan ak Pape Fofana ñu jël route de Niayes pour mooy gën a gaaw nekkee loo muus muus am na ñu la gën a muus waaw dañ doon jaay muus ne foofoo gën a gaaw nekkee am na ñu muusee ñu ñun jaar foofa ñu ñëw bu dugg dakaar te ñu tëj ñu ne fa ba treize heures et demie fu ma jëmati oto yi nii nii ba heure jumaa jot mënumaa dugg jé jégewu ma sax fa ma jégewu ma sax quartier Masaalikul Jinaan maa nga ca gannaaw yow man xëyaam ci laa mujj oo kele door ne ko ñun amuñ fa ñu jaar mu ne ah yéen ma ne ko ñu ngi nii taj tacc la def pexe amul kon damay retourne parce que du ma yegg si su ma fi bëggee si timis laa yegg si foofu parce que bu tasee retourner nit ñi bu ñuy retour bi day métti pour mën na dugg waaw lu tas ba ñu ñibbi bu ma duggee ko may waxal. loolu man loolu kele yónnee na ma oto muy rakku bugaan dugg naa ba dakaar jàll laa ci laa ne kele door bàyyi bi moom mu toog ma luyee taxi taxi laa luyee dellu tuwaan waaye ku ne xam na ni <laughs> man dara duma gàllankoor ci war a dox lu baax jamais lu baax ba ma ko yàlla sante laa ci déglootul kenn lu baax yàlla mi ñu bind moo ñu ko sant amatul ndigal def euh, euh, euh, xadaratul juma ba amoon ca bës ba mu nekk loo xamante ni oustaz Iran lan lañ ci mën a jàngati encore ci Masalikul Jinaan ci bésu aljuma bi. waaw xam nga gannaaw dañ ne wa annal masaajida lillaahi falaa tad'uu ma'a llaahi ahadan yàllaa ko moom lu yàlla moom kuy jaamu yàlla am nga ca place rafet na ni ni bakken ci xar kanam dara newu ci parce que julli juma ba sëlmal. cinq heures joon ñu laal malaan def xadara xadara lan la laa ilaha illallah laa ilaha illallah laa ilaha bi bëgg ñu tëjee ko allah allah bi so lii lu la ba jant bi so ñu tëj ñaan jóg donc fu ñu jullee allahu akbar ba ci asalaamaaleykum ñu door fa laa ilaha illallah allah ba jant bi so ñu julli timis ci néegu bi yàlla xaj na fa xaj na fa di néegub yàlla jaamu yàlla xaj na fa jaamu fa yàlla xaj na fa te wane na ni ñun ñëpp ay julli benn lañu tariixa mën na fi ne mais ñoo bokk façon julli Touba amul julli boppam Tiwaawan am julli boppam déedéet julli di yëpp bokk façon julli ti sibaar ñeent tàkkusaan ñeent timis ñett gee ñeent suba ñaar benn alxuraan la benn xibla la muy kaaba ga jeex na